leen ziara di del si tey nag di waxtaane benn ci tomb yi nga xam ne yaakaar nañ ne am na yitte te am na njariñ te mooy ñi daa wax waa daaray kaamil daaray kaamil nag am mbooloo la moo xamante ni sëriñ bi mi ngi ko sasoon ci jamono yi mu nekk gànnaar ca Mauritanie ci diggante 1902 ba 1907 wax nañ ne bi mu ko sosee itam kuréel googu nga xamoon ne matoon nañ ñaar fukki nit ak juróom-ñett daf leen a jox turu bustaanul aarifin waaye di wax ne sëriñ Touba it fu mu nekk bu fa mbooloo nekkee day tànn boroom alxuraan yi dëkk ak moom di ko jàng suba ngoon tànn ñaar fukk ak juróom-ñett nga xam ne bis bu nekk dañu jàng juróomi kaamil buñ julee fajar jàng ñaar. buñ julee sbaar jàng kaamil gannaaw taksan jàng ñaar mu juróomi kaamil suñ demee ba ajjuma ci ajjuma ci ngoon ñu jàng juróom-ñaari kaamil loolu soo ko soo ko boolee ngay xam ne kon ay bis gi euh, lu bari ci kaamil xëy na ay ay quarante six kaamil euh, soo ko xoolee ci weeru xool ko ci at mi kon lu baree bari la foofu la daaree kaamil tàmbalee. ndax ñu mel ni ñi nga xamante matoon na ñaar fukk ak juróom-ñett. te sëriñ bi sosu leen sos kuréel boobu ca gànnaar ñooy ñi nga xamee ni tam ñoo féete woon bu sëriñ bi soxlaa taxawal ak kër wala mu sax soxlaa tabax taxawal ab néeg ñoom ñoo ñu la ko daan sant nga xam ne kon yémuñu woon rek ci jàng alquranul karim waaye dañ ko daa booleeg liggéey ndax bu leen digalee ñu taxawal ko ak kër wala ñu taxawal mu taxaw ñu taxawal ko ab néeg buñ ko liggéeyee ñoom ñoo ñi nga xam ne jàngkati alquran lañu ba noppi dañu fay daje itam jàng fa alquran njëkk ko wàcce foofe ngir sanc ko kër googee wala néeg boobe bala koo sëriñ bee sanc ñooñu nag nga xam ne matoon nañ ñaar fukk ak juróom-ñett wax nañ ne ca gànnaar kam jiitaloon ca bopp ba mooy sëriñ Mor Kuna Mbàkke mooy ki ko a jiite moom daare kaamil ca gànnaar ginnaaw ba itam sëriñ Afiye Ñang wóotu na ko ca ci diggante boobu nga xam ne mooy 1902 ba 1907 bañ fa toxoo itam ñëw ba fa sëriñ ba toxoo ñëw ca yéen Jolof foofa itam ka fa nekkoon njiit ci daaray kaamil jooju mooy sëriñ Hamsatu Jaxate nekk na ko fa ab diggante sëriñ Afee Ñang dellusiwaat tam wuutu ko fa ci diggante 1907 ba 1912 muy juróomi at yooyu xam ne nekk na ko ceyin waaye it ñi yaroon jële ko ci ko ci moom fuñ ma sa am pénc am dëkk dañ fay def lu mel ne daaray kaamil loolu tey dafa dem balaw ba génn sax dëkk yooyu nga xam ne ñi àndoon ak moom ñoo ko sas waaye dem ci ba ci murit yi sax taalibe Sëriñ Tuubaa yi foo leen fekk ci taax yi daañu fa am barab boo xam ne dañ ko jàpp ngir di fa jàng alxuraan ba ci bitim réew ñu nekk Amérique ñu nekk Europe fii ne am nañu ay waxtu yoo xam ne ak barab yoo xam ne dañ fii day di jàng jàng gis nga lii nga xam ne mooy xew Tuubaa jamono yi jamono ñu nekk sëriñ bi woote bëccëg boo xam ne bëccëgu jàng alxuraan nga xam ne kenn du xam ñaata junni kaamil lañ fay jàng loolu yëpp mi ngi juddoo ko juddoo ci yittey Serigne Touba ci euh, njàngum alquran karim bi 1912 jotee itam ba mu fay joge jëm si njaareem ca la ànd ak waa daaray kaamil jooju waaye nag dafa digal Serigne Afi Afiye ñang mu des Touba moom jiite kuréelu daaray kaamil bi nga xam ne moo fete woo Touba ba boobale nag ba léegi ji fa lillaahi alhamdu wa sukuru kamil mi ngi def liggéeyam boobu ci jàng alquraanul karim daaray kaamil ju mag ji nga xam nag moo nekk Touba biñ taxawalee jumaa ju mag ji bam yemb ci le 7 juin 1963 Cheikh Mouhamadoul Fadal dafa jagleel xubba boobu dendeek barab bu mag bi daf koo jagleel muy kër ak alquraanul karim ñooñu di ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu itam di fa méngoo seen ab liggéey wax nañ ne daari kaamil jooju itam muy ji nekk Touba ci biir jumaa ji sëriñ Afia ñang la ca jiitaloon ginnaaw bi fi sëriñ Afia bàyyi ko sëriñ Joogu mbakke moom itam jiite na ko naka noonu sëriñ Sam Mbàkke jiite na ko naka noonu sëriñ Modou Yonni jiite na ko ginnaaw ba sëriñ Abdou Samad Bousso itam jiite na ko bam njëkk ci nag sëriñ Muntaxa jakate moom sëriñ Amsatu Jaxate moom nga xani ne moo ko jiite ba léegi ñoo ngi koy ñaanal yàlla sunu borom may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram. waaye lu tax sëriñ bi mënees na analyser wala ñu gëstu lan mooy sabab ci loolu sëriñ bi dafa ñëw jamono suñu borom di ko liggéeyloo ci yeesal diine diine kan dini sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa ba ko ba muy samp diine alquran la ko sampe woon. moo tax ku ñëw di yeesal diine jumtuwaay bay lañ lay joxaat moo tax sëriñ bi joxaat ko yàlla suñu borom joxaat ko alxuraan mu nekk loo xam ne nag sëriñ bi da ko téye jiitu ko ci lépp ndax doon na wuti ngërëmal yàlla di root leer yàlla ci anam yu bari ci xeeti wirdi ci xeeti zikkar yi waaye dafa xëy xëy suñu borom ne ko bay yooyu yëpp te nga jël alxuraan kese foofa la jaayante wax ne uaahidu allaha ahdil kitab bi xidmatin lil Moustapha Babi Sawab kerook la tuubaat ci yàlla jébbalu ci yonent sallallahu alayhi wa fa baat alquran nag daal di wax ne maa ngi jaayanteeg yàlla ci téye alquran karim. na jëmi jamono yoo xamante nag guddi àjjuma gu nekk daanañ ca boole juróom-ñaari kaamil waaye loola nag saxut ba léegi ñeenti kaamil yi daal mooy li nga xam ne sax na euh, ba moom la ñuy doxal fii ci Touba loolu nag boo ko wàññee. mbokki jullit yi dafa mel ne kon quatre fois sept vingt-huit la mooy ayu bis bu nekk benn kuréel boobu matoon ñaar fukk ak juróom-ñett dañ wàcc kaamil bi ñaar fukki yoon ak juróom-ñett loolu itam boo ko nattee ci par weer da ngay wax vingt-huit fois quatre muy cent douze mooy ci weer wi kon kuréel boobu dañ wàcc alquran lu tolloog téeméeri yoon ak fukk ak ñaar loolu boo ko doon seet ci at mi itam cent moo ngay multiplier par douze mu jox la mille trois cent quarante quatre muy junni ak ñett téeméer ak ñeent fukk ak ñeent euh, ci ay kaamil. kon daaray kaamil sëriñ bi moo ko sose noonu ñu dëkkee wàcce alxuraan noonu ah tey jii macha allah mayees na wax ne barab bii di Touba dama koy faral di wax ne mooy suuf si ëpp lañ koy war di jàng alxuraan te lépp mu ngi bàyyi ko ci itam jooju. suñ boroom it fab alxuraan jox ko sëriñ bi sëriñ bi neen sama boroom daf ma ko may la wax malaktuhu hadiyatan wa sadaqa wa samanan wa li yudibu nafaqa dafa sama boroom daf ma koo may ci anam yëpp anam yi maye mayee tax nga moom yëpp ndax malaktuhu dafa ne moom naa ko hadiyatan sama mboroom may ma ko wa sadaqa mu sarax ma ko wa samanan mu jaay ma ko ko ko moomee yëf moom suñ borom nag kon def ko muy koo xam ne da koo sàmmloo kon téere bi da ko ko jox may ko ngir mu di ko ko sàmmloo mu wax ne xafisa rabbi zikrahu bi ci mën mii la alquran yàlla di wattoo téereem bi te daaray kaamil jooju nag niñ ko waxee ci njëlbeen gi ba ko sëriñ bi sosee gànnaar mu jaar ci yéen jolof am fii ci Touba naka noonu itam am na ca njaareem ak ci yenn dëkk yi nga xamante ni sëriñ bi ko sosoon wala mu digle ñu sos ko euh, kon boo dee set bu fekkente ni 1902 ci la demoon Mauritanie ba 2023 ji ñu tollool téeméeri at la ak ñaar fukki at ak benn loolu itam boo ko doon natt ci tolloo la rek mooy da nga xam ne kon euh, cent vingt 121 ci ay at nga bokk multiplier 1344 ci ay kaamil ci tollale moom ci mennam at mi day tolloog cent soixante mille six cent vingt quatre muy téeméer junni ak juróom-benn fukk ak ñaar ci ay junni ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci cent vingt et un muy téeméeri at yooyu ak ñaar fukki at ak benn. suñ borom dogal na ci moom alxuraan tasaaroo ci moom alxuraan yaatoo ci moom alxuraan sax ci moom. ci xolu jullit yi waaye surtout xolu taalibe yi waxtu wu ne ñu di ko ñu di ko jàng di ko dur suba ngoon di ko jàngalu dëkkam bii mooy dëkk boo xam ne ni mu ko waxee léegi sa sa nattango bi mooy dëkku million daara parce que li nekk ci lii limub ay daara xaw ma ko feneen te bu buñ ne limub ay daara kon mooy ay limub ay ndonga macha allah moo tax gis nga ba ci concours yi international yi xale bi mujj jël euh, concours euh, ci ci Dubaï jël jël paie bi muy première bi premier prix bi xale bi jigéen la fii la fii fii la dëkk. alhamdulilah ci at yi jiitu woon gis nga macha allah xale yi saa bu ñu demee concours international suñu borom di leen ci may li di leen may lépp fàggutee fu sëriñ bi la. boo xam ne ñaan na ko borom waaye it jëf na ko ci terrain bi waaye nag yar na ci aw ñoñam ba nga xam ne macha allah tey jébbi na sëqi na naat na eh, yal na yàlla dolli koy leer te it waxtu wu nekk mu jëriñ ñu ci moom. Eh. kon lii mooy daare kaamil nii itam la ko sëñ bi eh, taxawle woon ca gànnaar muy dox ba jëmmi jamono ji ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taala lépp loo xamante ni jàng nañ ko ci ay kaamil. barke ba wàcc ci Sénégal wàcc ci àdduna bépp te itam sunu borom tabaraka wa taala ña ko mas di taxawee ba mu ko sosee ci gànnaar ba suñu jëmmi jamono ji ak lii jëm ci kanam insha allahu taala sunu borom gën leen a dooleel gën leen kàttan kàttanal ba nga xamante ni na ko sëriñ bi bëggee woon ak loolee mu ci yéene woon ngir am boppam ak njabootam ak ña koy jàng ñoom seen jëmm ak mboolem jullit yi itam loolu lépp lam ca yéene woon ca yéeneem jure ji itam sunu borom fay ko ci moom lu kawe njort waaye fay ko ñi nga xamante ñoo ko doon taxawee ak képp koo xamante tam bëgg naa taxaw woon lool amoon ca yéene te bokkut ca ñooñee itam sunu borom mën na loolu yàlla na ko def ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te xam ne ni lii benn woon ci kuréel yooyu euh, nga xamante ni des na nag ña nga xamante ni ñoo féete woon di bind alquranul karim loola waxtaanu boppam la waaye ña nga wala barab bara nga xam ne moom la ko daa beral ñu koy wax kàggug alquran karim euh, loolu itam waxtaanu boppam la waaye lii nag lañ ci jukki woon di sant ñëpp di gërëm ñëpp muy nekk loo xam ne itam bëgg nañ ku nekk di ca roy nag bëgg nañ itam ñooñu nga xam ne ñoo yore daal di kaamil itam ku nekk am taxawaay bu mu jëmee ci ñoom ndax bu ñu xamee seen liggéey bu réy boobu ak lim jëriñ Sénégal ci lu feeñ ak lu feeñut ak lim jëriñ àdduna ak al alamul islami ci lu feeñ ak lu feeñut xam ne ñooñu liggéey nañ fi liggéey bu rëy boo xamante ni ci ndigalal ala abdullahi wa xadimu rasulillahi kon yàlla ñu ko yàlla fayal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.